voilà Ibrahima ay ca ak euh, li gën a fës yéenekaay yi lañ koy doore rek ak l'évidence madame Diack l'évidence lañ koy daal di doore daal di euh, moom nag dafa ubbee euh, ca xëtam bu njëkk li nga xam ne rek moo ñeel acte de loyauté ou ruse pour éviter la coup de balai mu mel ni nag fi mu toll nii ay nemmeeku la journal évidence daal di def jëmale ko ci ñenn ci ay jegeñaale président Macky sàll ku ci mel ni Massali ak ñeneen ñi nga xamante ni rek fi mu toll nii daal dinañuy tekki seen ndombool tànk.

moom mi di uh, njiital uh, fële uh, di pencum ndawi réew mi dafa amee ay limite bu baax a baax ca boobule poste ñu daal di jëli direct news mi nga xam ne rek vague subite de déber de déguerpissement la daal di xëye Ousmane Sonko et le ministre de l'intérieur soit-il noonu la ko daal di daal di dakkantale soit-il dans euh, un même gouvernement mu mel ni nag euh, moom mii di ministre de l' intérieur ak Ousmane Sonko am nañ ay réeroo ci seen biir ah, gannaaw ba euh, njiital ñi nga xam ne rek ñoom mooy njiital gouvernement bi di Ousmane Sonko di xamle ah, moom nag dafa daal di rek xamu yëgul woon la nga xamante ne ni moom la njiital kii di ministre de l' bi jëloon ci ab dogal jëmale ko ci déguerpissement ci marché yi bu ci mel ni Colobane moom njiital gouvernement bi nag waraloon ni ki démb mu dem fële ca Colobane

doon jàkkaarloo ak jaaykat yi yëkkati fa ay kàddu l'observateur enquête de choc euh, sur les euh, détectives la daal di xëyee détective privé fii ci réewum Sénégal waaye itam wax na tamit ci euh, li nga xam ne rek coup pour coup la ko daal di dippee fële ci assemblée nationale ak la nga xam ne moo fa xew jamono ji waaye itam wax ci li nga xam ne rek mooy gouvernement bu président Bassirou Diomaye fay ak double jeu bi nga xamante nii rek nemmeeku nañ ko ci ca biir gouvernement ba ak njiital gouvernement bi di président di euh, premier ministre Ousmane Sonko mi nga xamante nii rek ni ki démb ba mu demee ca Colobane double jeu daal la ñu nemmeeku ne moom la fa daal di amal loolu euh, journalu l'Observateur moo ko daal di euh, fësal ñu dem ci la tribune débat d'orientation budgétaire ba la xëy moom assemblée nationale la daal di xëyee ak la nga xamante ne nii rek moo fa daal di tukkee jamono ji gannaaw loolu daal dina àddu itam jëmale ci déguerpissement bi nga xamante ni rek moo am ni ki démb fële ca Colobane euh, te kii di euh, premier ministre Ousmane Sonko demoon fa daal di fa yëkkati ay kàddu le quotidien des ba tey euh, ci boobule déguerpissement ak Sonko ma nga xamante ni rek daal dina exposer son état ni ki démb fële ca Colobane gannaaw ba muy façon bi nga xamante nii rek moom la ñu daal di débuté boobule déguerpissement ak la nga xamante nii rek ma nga tukkee ca ministre de l'intérieur bi nga xamante ne moo jël boobu le dogal moom muy xamle ne moom ak njiital réew mi yëguñu lu ni mel waral nag mu demoon foofee ca Colobane daal di indi ay leeral ci lu ni mel vox populaire des ba tey ah, ca la nga xamante ni rek moo ñeel la xew fële ci assemblée nationale ak débat d'orientation budgétaire ba nga xamante ne nii rek indi na ay réero ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy euh, député yi ku ci mel ni rek ay Daffé ma nga xamante ne nii ma nga bokk ca Yewwi Askan Wi waaye itam ak ña nga xam ne ñoom ñooy groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ñu daal di nemmeeku itam Amadou Ba euh, ci biir euh, journalu Vox Populaire moom ancien premier ministre moom Amadou Ba mu yëkkati ay kàddu tey xam ne ni dañoo war rek joxaat gëdd lii di suñu ay institution moom amadu Ba nag bu baax baax la xamante mooy dogal bi Ousmane ko jël waaye itam di ko woo rek ngir mu respecter lii di article cinquante cinq bu constitution bu Sénégal Sud Quotidien assemblée nationale la des ba tey ak la nga xamante ni rek moo fa daal di xew jamono ji ñu nemmeeku ñi nga xamante nii rek ñoom ñooy député yu Benno Bokk Yaakaar ñoom itam ñu ngay génn di ñaalu bu baax a baax dogalu premier ministre Ousmane Sonko ma lànk rek ne du ñëw fële ci assemblée nationale ngir jàkkaarloo ak député yi def lii di déclaration de politique générale Walf Quotidien bataille autour de la déclaration de politique générale l'impasse la ko daal di dippee gannaaw nataalub euh, kii di premier ministre Ousmane Sonko ak la nga xamante ne ni rek moo di assemblée nationale journalub Walf Quotidien def na ci ab xët bu yaatoo yaatu enquête yéene kaay annulation. du débat d'orientation budgétaire l'hémicycle porte le fair contre Sonko fi mu toll nii nag mbir yë ma ngay woy ba tey rek gannaaw ba nga xamee ne nii yenn ci ay député di député ya nga xam ne rek ñoo fare ca ku jëga fi mu toll nii nag ñu ngi ci ab ñu ngi ci mer ba futtu rek di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci nga xamante nii rek moom mooy njiital gouvernement bi di Ousmane Sonko ak attitude ba mu amee jamono ji lank rek bañ a daal di dem def lii di ab déclaration de politique générale am bien. dalal rek eh, kenn ci eh, ñi nga xam ne rek ñoom ñooy eh, Benno waa Benno Bokk Yaakaar di ab du Mbow président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar may xamante ne nii rek may xam ne ni bu ñu reconnaîtreul seen parlement ñoom du ñu reconnaître benn yoon lii di ministre bi di Ousmane Sonko loolu page trois bu laas yéeni kaay moo ca def ab xët bu yaato yaatu li quotidien moom itam des ba tey ca déguerpissement ba nga xamante ni rek marchand ambulant ya niki démb daal daal dinañ dalal Ousmane Sonko ñenn ñaar di ko applaudir ña ca des nag di ko ŋàññ bu baax a baax gannaaw loolu moom njiital gouvernement bi yëkkati na fa ay kàddu waaye itam kàddu ya lañ ca nemmeeku mooy rek am na lu ca lal politique gannaaw ba muy xamal ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo di ambulant ya euh, di leen dig lii ay financement jëmale ko ci euh, ko ñi nga xamante ni ñooy waa DER ba Aïda Mbodj dal di euh, jiite bés bi le jour bataille Pastef taxaw Sénégal Colobane théâtre des opérations la ko bés bi le jour dal di dippee gannaaw ni ki démb ak ful bañ fa dal di nemmeeku Ousmane Ousmane Sonko maandoon ak kii di Abbas Fall ak maire bu taxawu ah, bu ko de Colobane ñoom nag daal dinañ leen accuser ñoom marchand yi daal dinañ leen accuser ni ñoom rek ñoo jël boobu la dogal ngir daal di amal lu ni mel euh, foofee ca euh, Colobane le soleil la ñuy daal di ubbi opération de déguerpissement ba tey la daal di addu ak nataalub euh, ngi di premier ministre Ousmane Sonko yor yor naan ak accaparement foncier sur le corniche moom nag dafa dellu siwaat moom yor yor ca foncier ba ak ba ba nga xamante ni rek ñu nga ko doon laam-laamee ci jamono yi ñu génn fële ca corniche ba le président Bassirou Diomaye Faye décide de restituer le plage de la l'ANS Berne ab Anse Bernard Anse Bernard au euh, au Dakar waa loolu nag mooy la nga xamante ne nii rek ni ki démb gannaaw kolobaan moom njiital euh, gouvernement bi di euh, kii di Ousmane Sonko dem na fële ca Anse itam tey xam ne ne na mu nañu joxe foofee suuf daal ma nga koy ŋàññ bu baax a baax moom njiital gouvernement bi waaye itam di promettre ne rek dina dinañu daal di def defaraat foofe ba la nga xamante ne ni moo fa xew jamono jii ñu daal di koy réparer ñu daal di àddu. Ah, ci li nga xamante ne nii rek mooy tàggat yaram ak record yenn kaay ma nga xamante ne nii dafa daal di des ca euro 2024 huitième de finale yi nga xamante ne nii Belgique war na caa laale ak ñii di waa France mu mel ni nag ab défi la boo xam ne rek ñii di les bleus di les français war nañ ko defie ñii di waa Belgique gannaaw loolu stade yenn kaay daal dina itam fësal nataalu kii di Mbappé ak Cristiano Ronaldo France et le Portugal sous pression noonu la ko stade daal loolee ñu daal di ndar keppe eh, li gën a yéenekaay ak sunu làmb mi des ba tey eh, ci li nga xamante ni moo di nataalub Sa Thiès moom sunu làmb daal di na koy fësal fësal gannaaw defet bi mu amoon eh, ci ki nga xamante nii rek moo di Eumeu seen moom journalub sunu làmb daal dina dikk bu baax a baax ci doomu dubalees bi gannaaw loolu daal dinañuy fësal tamit làmb Maam Balla bi nga xamante nii ak caatu limousine bi nga xamante ni Maam Balla moom ndam ci kaw caatu limousine mbokk yi voilà merci beaucoup Ibrahima mu doonoon li nga xam ni moo gën a fës euh, ci yëglekaay ñu doon ci ànd ak euh, Ibrahima euh, Faye sans plus tarder dañuy jàll léegi léegi ci li nga xam ni moom mooy suñu actu commenté comme à chaque fois nag moom la ñuy dooree tey nag.